Boubacar sey maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. alors ngay njiitu ONG Horizon Sans Frontières waaye tamit sa xel màcc euh, ci lépp loo xam te ne jëm na ci wàllu migration internationale ñu gis ni am na gaal gu suux mu nekk nag nag rek gu dal ci kaw Sénégal lu tollook ñaar fukki nit ak ñeent yu ci ñàkk seen bakkan wala sax ëpp na ko loolee lan moo ko waral euh, selon yow. waaw xam nga les causes là dañu bëri les causes sont multiples causes yi multisectorielles. cause multidimensionnelle cause économique cause politique mais tout d'abord damay commencer njaal euh, di jale tout le Sénégal wax ni sax tey ku nekk mën naa jox sa morom loxo rek ni ko sigil ndikaale hmm. maa ngi doon xaar sax ñu décréter un deuil national donc euh, loolu aussi mu nekk euh, naqar tiis incompréhension et colère aussi euh, mais tey lii jaaxaluñu bettuñu parce que fan yële passé ñu ngi doon alerté nii suñu daful nànk rek mbir mi dina gën a tar loolu moo ñëw tey ñu nekk ci au scénario où migration mu ngi continuer di dévoiler des aspects et conséquences incalculables ci sociétés yi ñu nekk nga xam ni c'est des sociétés de vulnérabilité chronique ndool bekk yeneen yeneen ñu nekk ñu nekk ci biir donc euh, tey si scénario bi li ñu nekk Euh, mu nekk loo xam ni ñun yàgg nañ ci yàgg nañ ko alerter mais malheureusement alerte yooyu kenn mu si tenir compte beneen bi li ko yokk mooy la situation politique du Sénégal bi nga xam ni tey depuis plus de deux ans situation boobu mu ngi plombé la vie économique du pays tey espoir amatul l'espoir a été tué dans ce pays-là le désespoir les l'instinct de survie nit ñi nit ñi fexe ba mucc l'inflation loolu tey dafa nekk principale cause yi nga xam ni tey moo indi njàqare yi am tey nit ñi day sax soo dafee la typologie des des profils nga gis ñëpp a ngi ci jigéen a ngi ci xale ngi ci étudiant ngi ci ki liggéey ngi ci mag a ngi ci ndaw a ci donc dafa mel ni c'est la population du Sénégal mooy tëb jël ay gaal ni ñoom kat mënatuñoo dëkk Sénégal amuñu yaakaar ni dëkk bii mën nañ fi dëkk parce que tout est abîmé donc nañu daw faneen hmm. donc loolu moo indi mbir mi nii situation bi ñu toll nii. mais ñu gis nag ne ci victime bi dafa bëri loolu ay jigéen yoo xam te ne bokk nañ ci. waaw xam nga boo xoolee abe alerté woon naa aussi sur. Euh, le fait que dafa am une féminisation des flux migratoires clandestins au Sénégal ci jigéen ñi dañuy noter la la présence de plus en plus massive ay jigéen parce que avant jigéen ñi dañ doon tukki par regroupement familial mais léegi tout comme les hommes da ngay gis ni les femmes sont impliquées dans la migration pour des raisons économiques mais li ko indi c'est la forte c'est la forte paupérisation du genre le taux de chômage l'exode rural jigéen ñi ni leen waroon jàppale mu des boo xoolee le taux de chômage des femmes est trois fois plus élevé am na ñu wax plus de vingt sept et quelques euh, contre euh, onze et quelques euh, bien que man ces chiffres là man doyuma le taux d'employabilité est, est est plus faible chez les chez les chez les les femmes euh, yooyu yëpp tey dafa nekk. liy expliquer tey la présence de ces femmes la ci mbëkk bi waaw ci mbëkk bi malheureusement nag euh, euh, fii la mbir mi toll tey donc il faut que ñu saytuwaat yooyu yëpp wax naa ni profil yëpp ñoo ci nekk jigéen ñi nag euh, boo xoolee même bu dul Sénégal sax ci àddina bi depuis 1990 gis nga on parle de féminisation des flux migratoires les femmes dañu occupé plus de 48 virgule 6 pour cent des migrations internationales 51 pour dans les pays développés kon ñooñu tey damay profiter rek si sa antenne bi ak sa émission bi pour demander plus de protection mm-hmm. parce que dafa am un vide juridique il faut un statut particulier de la femme pour une meilleure protection parce que ñu ngi leen di violer ñu ngi leen di toroxal ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di dóor hein euh, durant leur projet migratoire donc yooyu yëpp tey dafa war nekk l'objet d'un débat international pour une meilleure protection. alors ñu gis ne léeg-léeg nag ñoom dañu dem ñoom kese dañuy boot seen ay doom yan risque la loolee mën a jur. waaw risque yi wax naa la ko léegi mooy xam nga euh, li ñuy daj ñoom ci leur projet ñi ñu ñuy parce que ñooñu c'est des personnes vulnérables dañu wax ni dañ leen war a protéger xale ak jigéen donc risque yi mooy la ma wax léegi. dañ leen di dóor dañ leen di ëmbal dañ leen di violer dañ leen di sonal am na ñu ci dee yooyu yëpp mooy risques yi léegi nag dafa laaj ñu gën leen protéger. Mhm. voilà loolu c'est un débat qu'il faut soulever à ndaw yi tamit ndaxte du jigéen ñi kese euh, ndaw ñi tamit dañ ci am ay jafe-jafe mais gisoo ne xëy na euh, dundin gu cher gi li mu gën di métti euh, mooy waral ñoom tamit léeg-léeg ñuy dem. waaw mais absolument l'inflation nee naa la Dakar moo nekk capitale bi gën a métti bi gën a cher ci ci ci ci ci Afrique avec un salaire moyen de cent dix euros donc euh, Dakar moo gën a cher même les capitales européennes da waaru ci yàlla moo tax nit ñi gëmatuñ ne ak actualité politique bi fi nekk nii mu plombé toute l' économie l' total nit ñi gëmatuñ ne mën gisoo nit ñi lekkatuñu nit ñi naanatuñu nit ñi jàngatuñu nit ñi fajootuñu gisoo nit ñi ay feebar la ñuy doxee donc loolu moo am moo tax profil yëpp la du jeunes yi ñëpp a ngi ci ni ñi ñoo ñoo gëmatul ne euh, mën nañu continuer di di di di di dund dignement dans ce pays la pour eux ce pays là est abîmé économiquement donc espoir moo fi amatul donc les gens sont guidés par l'instinct de survie nan la ñu fexee ba mucc ci lii loolu moo loolu moo expliqué euh, cette cette intensification de ces flux migratoires clandestins nit ñi ñoo jaaxle ni ñi ñoo jaaxle gisoo la destination Nicaragua dafa dafa feeñaat ci lii nit ñi mënatoo wax sax extrême pauvreté parce que quand on paye un billet pour quatre cent mille euh, quatre cent mille euh, quatre millions de francs CFA six mille euros donc on ne peut plus parler d'extrême pauvreté mais nit ñi ak li ñu gagné mënatuñu dund dignement dans ce pays là ñu yaakaar ni et ça c'est la théorie macroéconomique qui fait qu'un fort différentiel géographique entre l'offre et la demande est facteur de propension ñi liggéey sax dañuy jaay li ñu am bay seen liggéey démissionné dem moo indi la destination Nicaragua pour dugg États-Unis moo indi njaaxu yu bëri donc le le problème là est très complexe moo tax tey dans les perspectives de solution ma wax ni il faut que ñu arrêter discours yi il faut que ñu bañ ko instrumentaliser politiquement il faut que ñu toog le plus rapidement possible waxtaan la seule boussole le seul cahier de charge bi ñu mën a teg tey pour saafara mbir mi moom mooy orienter les perspectives de solution vers la sécurité humaine nan la ñu mën a fexee ba doomu aadama régler toutes les problématiques liées à l'insécurité alimentaire mooy lan su xiifee lekk su maree naan l'insécurité économique mu war a liggéey wala ab kër war a dund dignement l'insécurité sanitaire su feebaree faju l'insécurité Euh, individuelles les persécutions parce que tey la cause est devenue même politique au Sénégal yooyu yëpp tey suñ ko orienté le débat sur doomu aadama nu ñuy aaree doomu aadama dinañu indiwaat espoir mais l'occasion est là avec la avec les les, les élections présidentielles nañu fexe ba l'offre politique mu nekk le chômage endémique nañu fexe ba l'offre politique mu nekk les tares de la mauvaise gouvernance nañu fexe ba nu ñuy canaliser les populations pour joxaat leen espoir lii moo war a nekk tey le débat politique au Sénégal. ci laa bëggoon ñëw sax ndax euh, gis nañ ne ndaw ñu bëri ñoom seen jafe-jafe mooy amum xëy. waaw justement. Mm. ñàkkum xëy mi. Mm. moo indi lii yëpp. ñàkkum xëy mi parce que état dafa dafa échoué les politiques publiques ont échoué dans la prise en de la jeunesse loolu c'est la mission régalienne de l'État foofu dafa échoué donc il faut que mu mu xoolaat saytuwaat toutes les problématiques liées au chômage des jeunes faut mu xoolaat mbirum napp aussi Parce qu'il y a une nouvelle donne, c'est avec l'arrivée de ces pêcheurs. Parce que nous, ils se disent écrasés par la pêche industrielle et la pêche illicite, et non, non légale et non réglementée. Nous, nous, nous, nous, c'est métier, au-delà d'être un métier, mais c'est la tradition. Hmm. Il faut rétablir un plan stratégique pour la soutenabilité, la stabilité et la sécurité de la pêche. yooyu yëpp tey dafa ñëwaat moo tax il faut waxtaan am un débat national les gens vont s'asseoir pour analyser le phénomène. Mm-hmm. Il faudra aussi, du point de vue socioculturel, des ateliers, des ateliers de relecture de la perspective. pour foo mu am une révolution culturel que doomu Sénégal xam ni doomu réew mooy tabax réew mi ñëpp mënuñoo mbàbb ni dañuy dem kon kuy tabax Sénégal yooyu yëpp il faut que ni ñu xam pour nit ñi mën a gëm seen bopp parce que parce que solution bi du dugg biir Europe nekk ci ay feu rouge wala di demander droit d'asile te kenn du la may le migrant sénégalais j'en profite pour le dire mënul am droit d'asile mm. donc mbir mi fii la mais nag loolu il faut nga gëm ni yow mën nga réussir fii mais soo demee ba yow yaakaarootu ni mën nga réussir fi sa biir dëkk foofu la problème bi nekk et c'est là où on doit aller vers des perspectives de relecture de la de de de de relecture des des des yi ma wax ni yëpp des des de des de relecture de la perspective pour que mu am une révolution socioculturelle ñu xam suñu bopp gëm suñu bopp doomu réew mooy tabax réew. alors gaal gi suux nag euh, jógee Joal dem fi nga xamante ne mooy Ngoxu Mbax mu mel ni bilan bi euh, mu ngi gën di yokk ba tax na sax am na benn comité régional euh, boo xamante ne teg nañ ko fi ngir rek mu mën a saytu lu ni mel ban gis-gis nga ci am. waaw bilan bi nag malheureusement moom dina yokk parce que am na ñu wax ni y plus de trois cent dix-sept personnes. Hmm. moo nekk ci gaal gi gis nga li ñu gisagum bëriwul. donc ñu ci bëri ñu ngi ci suuf mu ngi ci ndox mi ñu ngi ci suuf malheureusement donc euh, loolu moom il faut s'attendre à ce que moom bilan bi moom dina gën a yokk maintenant que l'État jël ay matuwaay teg crise je suis entièrement d'accord mm-hmm. il faut prendre en charge ñi nga xam ni tey ñoom ñooy rescapé yi mm-hmm. il faut aussi prendre en charge les familles il faut que ñu teg des cellules psychologiques il faut accompagner les gens dans la détresse et dans le deuil loolu man man moom laay xaar ci état am na recherche yi nga xam te ne ba tey nag ñoo ngi koy wéyal ngir mën a gis ñeneen ñi nga xam te ne daanaka réer nañ ci ndox mi euh, loolu ndax mën nañ ci am yaakaar ndax bu ñu sukkandikoo ci gouverneur wu euh, Saint-Louis di Alioune Badara sàmm ba tey daal ñoom ñoo ngi wéyal euh, recherche yooyu le waaw mais mbir mi dépassé na vingt quatre heures maintenant. Mm donc vous que chance yi mu ngi wàññeeku pour trouver des rescapés des gens vivants donc malheureusement donc yëpp tamit mën nañ ko mënoon nañ ko éviter. mais comme l'État euh, toujours dafa musa nekk à la traîne dans ce dossier là parce que xam nga mbir pour nga saafara ko da ngay d'accord ni am na mais l'État ne communique pas le simple fait que l'État rek organiser woon un deuil rek c'est une benn forme de sensibilisation là pour kat nit ñi xam les dangers que les gens prennent conscience lii kat c'est très dangereux mais suñu dee mime tous les jours mais dañuy banaliser la mort suñu dee nëbb chiffres yi on banalise loolu lay indi mais suñu d'accord ni fi mu ne nii mënoo fee jiiñ kenn man sama man sama bopp pour man nous sommes tous responsables mënoo jiiñ état bàyyi famille yi la la nouvelle économie des migrations internationales eh, incrimine les famille ñooy paas ñooy dajale fa la projet bi di juddoo kon ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nous sommes tous responsables kon nag su jiiñante amul ñu xam ni kat fii ñu toll nii kat ci ñëpp la metti te ku nekk am nga ci part de responsabilité na ñu dem vers des perspectives de solution durable mais ci kaw ñu nangu ni problème bi am na mais tant que nanguwuñu problème bi am na wala ñu ngi koy nëbb alors euh, lii lay indi c'est-à-dire qu'on banalise la mort on banalise ces ces drames Alors, ce qui fait que le dossier va va toujours être à la traîne. rescapé yi ñoom jot nañ leen yóbbu ci hôpital régional bu saint est-ce que waruñoo gën a bàyyi xel yi tamit ci ñoom seen wér gu wàllum prise en charge bi. ah waaw waaw loolu kay il faudrait que wax naa ko léegi il faut que il faut les prendre en charge sur les plans point de vue sanitaire du plan psychologique et autres là non il faut ñu taxaw lépp je crois que loolu état dina ko def parce que quand même affaire bi c'est très grave c'est très grave donc am naa yaakaar ni état dina jël euh, les dispositions qu'il faut quand même voilà pour taxawu les rescapés taxaw aussi les familles. pour yow lan la ñu war a def euh, réellement ngir mën na fexe ba éviter genre problème yu mel ni waaw mais mais mais aborder le problème de façon systémique parce que c'est un dossier transversal multisectoriel les causes sont multiformes d'abord même la cause politique tey dafa dellu si il faut une pacification de de l'espace politique il faut dëkk bi dellu si waat ci jàmm pour ñu mën a renaître encore l'espoir il faut. Euh, nit ñi ñu jàppale leen j'ai parlé de la sécurité humaine il faut que tout tourne autour doomu aadama dafa war a dund dafa war dundu dafa war a faju dafa war a lekk dafa war a naan dafa war a jàng dañ ko war a protéger yooyu yëpp su dellu siwaatee espoir day dellu siwaat loolu loolu moo war a nekk nos défis à tous renaître l'espoir joxaat nit ñi yaakaar ni fii kat mën nañ fee mën nañ fee dund fii mooy suñu réew loolu suñ ko defee ci waxtaan bañ a ŋàññante am naa yaakaar ni mbir mi dina soppeeku maintenant il y a un autre débat à sur le plan international parce que aussi les causes sont sont sont partagées il y a l'Europe qui s'érige en forteresse yooyu yëpp dafay dellusiwaat Mhm. yooyu yëpp dafay ñëwaat donc c'est un problème très complexe qu'il faut analyser de façon systémique pour que ay saafara mën am. Boubacar Seye jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu ONG Horizon Sans Frontières waaye tamit sa xel màcc ci wàllum migration internationale ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waa kañ maa ngi leen di fay.